ayca salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum képp koo xamante ni si yaa ngi ñuy seetaan ci El Vision Média partout daal le monde ñu ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen comme li ñu leen ko doon waxee saa su nekk rek tey nag yéen ngi gis maa ngi toog ak ndaanaan boo xamante ni si kenn dootu ko présenté ci Sénégal kenn dootu ko présenté ci àdduna e, muy Baka ñaa e, Baka e, nuyu naa la ak boo noppee nga nuyu askan bi nga xamante ni tabarka la ñu ngi lay ci El Média fépp ci àdduna bi waaw Mame Bamba maa lay bu baax euh, di kontaan ci action bi ngeen def ni tey euh, ginnaaw loolu nag may sant samay ñaari waajur bu baax di sant yàlla jul ci ent bi waaw di sant samay fans te di leen nuyu aussi ñoom ñëpp di leen bëggee fu ci waay mën a nekk ci àdduna ak euh, bitim réew ak fépp foo xam ne rek tey fans Backa Niang mi ngi fa ak doomu aadama boo xam ni ah mi ñuy bëggee maa ngi koy bu baax di ko jox la ko di ko jaajëfal di kontaan ci moom. Euh, Baka waxtaan bi foofu lañ koy ubbee ndax euh, fan si ñu ngi laaj laajte ana Baka ana Baka euh, ñu gis Baka mu toog benn temps bu yàgg fan si gisuñu ko Baka ci lan la nekkoon. waaw Baka Niang moom ku ne xam na ni moom du nekk ci lenn lu dul ci musique parce que ci musique laa gindikoo moom laa xam xawma dara su weesoo musique bi may def mooy oto yi may jaay business oto bi may def mais bu dul loolu man musique kasa laa xam. Euh, bu ma gisee Sénégal maa ngi ci musique bu ma jugee Sénégal dem bitim réew États-Unis wala Europe maa ngi ci musique euh, te musique bi ma nekk nag du musique gu dara lu dul bégal samay fans ak euh, def li nga xam ne mooy sama mission ci kaw suuf nga xam ni mooy bégal jaam ñi waaw ba bokk ko samay nawle ak ñëpp bakkañ naa ci loolu lay nekk tournée bi ma nekkoon nag temps yëpp moo tax Sénégal gisuñu ma woon mhm. waaw euh, Baka euh, yaa ngi ci musique bi mais actuellement fan la Baka toll ci musique bi ci euh, album bi parce que dégg naa sa single bi nga xamante ni moo tudd ba donc fan la Baka toll ci promotion single boobu ak Baka tamit lan lan la ko fan yi di xaare ak lan la leen di xaaral. waaw single Dieynaba de xam nga ni moom yëngal na jamono. waaw bëgg naa lool ñoo tamit xam nga toj réew mi. Baka Niang mooy artiste boo xam ni man waruma buzz comme ni koy waxee rek te duma artiste buzz parce que buzz mooy kuy kuy kuy kuy yéeg di wàcc. waaw wala koo xam ne da xew rek après dootoo xew. dollar quoi waaw mais man moom ku ne xam na ni euh, showbiz musique fii Sénégal euh, dama fee féete foo xam ni man heure bu ma ñëwee rek nga xam ni Bakaña ñëw na heure bu ma fu nga xam ni Bakaña mi ngi fi ba léegi. parce que bëgg naa loolu moom ku ko dégg ba fi toog di wax maa nii tey bu ko nit ñi déggee ni gonga kon euh, day dafa nekk loo xam ne rek mooy rek wane ni doomu yi leen rek Bakaña moom ci tournée bi la nekk moo tax gis ñu ko temps yi nii. waaw mais Baka dañu gis euh, Baka jugee gox bi système euh, gars yi yaakaar Baka bu fa lampam day fay ñu gis Baka ñëw gën a taxaw euh, gën a Baka lan moo nekk ci ginnaaw Baka. waaw li nekk ci ginnaaw Baka nag moom mooy staff Baka ña ah, ak sama groupe groupe groupe Teranga ak musique ak way ak way lu neex doomu aadama yi loolu bakanya nekk ci ginnaaw Baka ña mais du leneen sama staff. ak woy bi may woy ak euh, comme ni ma ko waxee rek. waaw loolu daal moo nekk ci ginnaaw Bakaña. kon acca yéen a ko déggandoo mu ngi noonu mu nekk euh, Bakaña di ndaanaan boo xamante ni kenn dootu ko présenté ci Sénégal mais Baka actuellement projet yi lan la la ci lan la bakka nekk actuellement ni ñuy wax. waaw man parce que bi ma ñibbisee léegi defagul sax 3 jours. Euh, dama dem États-Unis jóge fa dem Argentine. te ku ne xam na ne Argentine moom xam nga du fii fépp. Euh, ma dem fa nag euh, gérer li nga xam ne mooy sama contrat bi ma fa amoon deux mois parce que ñoom bu Sénégal wala ay Europe ak yooyu bu nekkee ci seen sedd seen hiver ñoom dañuy nekk seen été du dëgg ma nekk fa nag euh, ñu amoon fa benn contrat boo xam ne deux mois la ci comme ñoom ni ñu koy waxee ci bolitier ci boîte ne foofu ma gérer deux mois yëpp ba mat doog a ñëwaat nii quoi te bu may ñëw dama jaar États-Unis ba pare def fa benn deux semaines tëgg fa benn spectacle ba pare doog a ñibbi si nii nii nii mais Sénégal moom xam na ni. mooy li ma wax léegi rek ñun duñ duñ duñ teg dañu war a teg ko ci. Euh, li may def mooy ñu ngi pare ñaari clip yoo xam ne ñu ngi koy tourné nii nii euh, bu ñu jugee ci clip yooyu noonu te avant clip yi di pare dañuy dañuy sampaat suñu bopp ci boîte yi nga xam ni doon nañ fi tëgg. ba ñun demee moo tax ñu tegg suñu tànk mais day ñëw bokkal dëggalaat suñu bopp. parce que bu dee way lu neex jaam ñi. ku ne xam na ni bon bakkañaa da koy def ah bu dee tamit euh, way li nga xam ni moom la tey suñu génération bëgg bakkañaa da koy def. kon nag duñ def la lu xalaat géew bi rek préparé woo suñuy fan suñ ñëw ñu jàkkaarloo ak ñoom waaw nii daal la demee. acca Bakka léegi euh, sa diggante ak jeune talent yi naam ka sax Sénégal léegi amatul jeune talent parce que ñëpp mën a way léegi mm. mais sa diggante ak waykat yi nga xamante ni yéen a bokk génération est-ce que sa diggante ak ñoom mel na ni mu war a mel. waaw man nag euh, dafa am lu ne ci man. loo xam ni ni ma ko mën tuddee mooy Baye Fall mm-hmm. waaw man yàgg naa ko wax man gëw ma ay gëw ma ñor di dara loo amul. waaw man Baye Fall maa lay dundee. Euh, bañ naa ko ba sax am na ñoo xam ne tey euh, ñi nga xam ne bu ñu dem spectacle wala fenn. Euh, ñoo ñoo ñuy garder di ànd ak ñu koy woowee garde corps. bu ma woowee ni ma bakka da dégg naa daa am fu mu a dem Amadou woo na ma nee nangam nangam dama naan ko jaru ko toogal. Baye Fall maa laa bëgg demee. du dëgg nañ dem def ko ni mu waree ñibbisiwaat ci jàmm suñu kër boo fekkee ni ñu toogee nii noonu la dundee jàmm ñëpp muy Baye bi. jeune talent yi nga xam nag dañuy way man yàgg naa ko wax nee naa man lu neex laay wër man wëruma doomu aadama bi ni mu mel wala melokaanam wala système am wala ni muy dundee man max lu may wër man neex a ma sonal. waaw te dama nekk doomu géwal nag. di sant da nga yor ay noppi garmi waaw ba pare nag doon doomu géwal. ba pare euh, li ajaratu ki ne la am doon wax naan ay mag lañ mu ñoo way waaye lu waay waay xam nañ ko. waaw man noonu laa mel. man nit bu ma la xamul sax soo wayee lu neex damay daanu. waaw damay jooy barke Serigne Bamba jeune talent yi nag ñu bari samay xarit leen ñoom ñëpp ñi ma ci xam ñi ma ci miinanteel xam na ni ñoom ñoom dama leen di dama leen di dama leen di dama leen di fiil waaw dama leen di get te heure bu ñu soxlaa ma jàppal leen ci dara dama ciy jàpp maag sama manager xam nga parce man booy banlieue la xam nga dëkk Pikine ginnaaw raay juddoo fa yaroo fa màggee fa kon il ànd ak ñoom ci li nga xam ni xam nga mooy seen man-man ak seen bëgg-bëgg ñoom ñëpp samay xarit lan bu ma limee tey du ma fa jógee ñoom ñëpp nag waaw xëy na yàlla def na maa leen njëkk a way xam nga njëkk leen génn xam nga njëkk leen def yenn yi mais wóor na Serigne Bamba dan may daaneel danoo mën a way lool mhm. acca Baka euh, fi ñu jeexal émission bi nag moo di ne euh, télé bu mag bi nga xamante ni moo nekk ci àdduna bi muy El Vision Média donc euh, naka nga gise seen liggéey waaw Elvision moom euh, vraiment ñu ngi liggéey lu am solo parce que tey yéen seen mission moom mooy lii waaw moom mooy tey euh, li doomu aadama yi soxlaa xam dëgg yéen ngeen ñëw leeral ko mu leer ci nopp jaam ñi ak bëtu nit ñi du dëgg euh, moom ngeen def ni kon yéen ngërëm da leen ñeel maa ngi leen ñaanal yàlla sunu borom fépp fi ngeen bëgg a yegg ngeen yegg fa parce que danoo toll ci jamono joo xam ne dara yombul dara yombul li ngeen def nii chaque jour ngeen nekk ci montage yi xam nga nekk ci tournage yi xam nga bàyyi seen yu bëri yi ngeen war a def dajaloo dem dem groupe xam nga def li ngeen war a def loolu yombul quoi. est-ce que yaa ngi seetaan est yi ñu tuddee nooy moytoo sa noonu. maa ngi koy seetaan mhm. maa ngi koy seetaan mais loolu dafa am solo loolu parce que xam nga ni euh, jël bi ngeen ma jël ñoom lu ñu ci def mhm. loolu dafa dafa dafa dafa dafa nekk loo xam ne tey mhm. sama moroom artiste yëpp dañoo soxla loolu parce que am na ñoo xam ne tey yàq nañ seen seen xam nga seen àdduna ciy demee noonu ay wax yoo xam ni du waxu dëgg te day dem te wax dafa nekk loo xam ni bal la bu génnee jeex na waaw moo tax maytu sonnoon nag dafa am solo ak ni nga koy maytoo nag waaw acca Baka kàddu gu mujj gi lan lay doon waaw xanaa di sant ñëpp rek. Euh, di gërëm ñëpp di leen wax thank you so much. xam nga ni ngeen and everything maay gërëm ñëpp. barke sëñ Tuubaa di kontaan ci ñëpp. xam nga di wax rek ni xam nga nañu ñaanal ay ndaw lan ay ndaw yu bëgg a yegg lañ. te yegg bi ñuy bëgg a yegg yëpp di xam nga di xaacoog di def ay yëf yëpp lenn rek moo ko waral ngir bëggal jaam ñi rek. dañuy yëkkat suñu xaalis di ci def. di yëkkat suñu temps di ci def. xam nga du ñu du ñu fanaan sax suñuy kër. studio lañ ñuy fanaan lépp ngir bëggal jàmm ñi xam nga loolu nag bu ñu koy def ngir bëgg ñu xàppee rek moo tax mais kon euh, maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp te di leen tàllal ay loxo di leen ñaan te nañ ñaanal ndaw ñun ñëpp nañ ñaanal ñu ñëpp quoi euh, man ak sama génération ak ñu nu njëkk a way ak xam nga ñi nga xam ne waye gunu te dañuy waaj way xam nga ñoom ñëpp nañ ñu ñaanal ñaan gi dal ñoog jàmm sunu borom mosuñ ci musiba ak balaa ah ñu fekk lépp te yow it nga xam ngeen dem ba yor seen antenne bu mag ci àdduna nga xam ne dañ naan xam nga boo nekkee ci diaspora bi Europe ak foo dem xam nga rek ngay jàpp ngir mën a gis lu leer waaw maa ngi kontaan ci yéen acca mu ngi noonu ngeen àndoon ci ak docteur Guèye Bamba Baye Serigne Saliou ah nii lay demee saa su ne ah baka gars yi nga yuuxul leen dara ci El Vision Média El Vision Média soo bëggee lu leer na nga ko jàpp baa ngay seetaan di xool laay lëla laaw lu ne fang kenn du ko jeex yéen laay béggee yéen la ñuy béggee farion leen waa la gay daan jël yéen laay wër yaay yéen la ñuy wër yéen la ñuy saggoo yéen la ñuy tiitaroo lu ñu réer yaay yéen la ñuy xool ngir xam lan la lu nuy seet yéen la xool ngir xam lan la ak li xew ku bëgg a xem li xew ah ci jamono na leen di seetaan ba mu leen di xool bu kenn teggi sa loxo fii rek la. acca El Vision Médias noonu la ñuy tëjee émission bi wasalaam.